sëriñ Tuubaa xaada lahu llahu maxtaara lahu nee na dénk naa leen ñaar te bu leen ko ñetteel liggéey ak jaamu yàlla aduna lu ngeen fi gis muy nduru nduru lu dara sutura rekk la dëggi dëggi teraanga àllaaxira la am teg ci ne ku bëgg sutura nangoo ku bëgg teraangay àllaaxira dangay nangoo jaamu yàlla wax ji nag ñu ngi ko jëlee ci garabu Tuubaa